wax ne diine lislaam bu fekkoon nit la jëmm ji jëmm lay doon misaal ci ne imaan bi tawxiid mooy ruux gi ndax nit ku amul ruux mënul tax ñu wooye ko nit ndax waxtu nit tàqali ko ak ruuxam rek dootoo dégg ñu wooye ko nit waaye am na weneen tuur ñu koy wooyee mu ne bu fekkonte ne nit la ba tey ci misaal islaam bi mooy yére yi ndax ku solul yére doo mën a duggalante ak nit ñi ndax foo jëm ku nekk ñu am fuñ la boole bu fekkoon ci misaal nit la it ñu ne muamala xasana bi te mooy ihsaan bi tasawuf mooy jëflante bu rafet bi nga xamante ni moom ngay jëflante ak doomu aadama yi ndax diine bu ca mu amala xasana jóge lépp jeex na te mooy ko moo tax daa wax ne fond ne mag naa sama mbir ci yett yooyu muy gëm yàlla gu ànd ak wéetal yàlla moo tax daa mel ne bu ñu dee jàngat loolu dañuy fekk ne euh, kalimatu laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullaah moo ñuy indi àdduna waaye li ñu fa bàyyi nag mooy tawxiidul kalimati mooy fexe ba rek nii ko Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke ayadahu Allahu wa nasaro di wootee mu amee noonu waaye bu dee womatu ci islaam it mooy da ngay jox sa lépp lislaam mu lay womat naa la defal ngay def mu naan la bàyyil ngay bàyyi moo tax Sëñ Tuubaa daa na wax ne képp koo xam ne da ngaa jortu ne ab jaam laa buy jaamu keneen ku dul borom bi la nga jot nax na la waaye man jaam laa buy jaamu yàlla ci ngirum Seydina Muhammad waaye comme na mu ko tànne kon defu ko moom ci ak tànn waaye na ko diina tànn sëriñ bi radiyallahu taala anhu bi mu jógee la daal di xamle ki mu doon ginnaaw bu ko yàlla defee ki mu doon ci daraja njool màkka sallallahu alayhi wa ndax ci al imaanu bi tawxid boobu mënoon wax digle yàlla yi tabaraka taala daa waxoon ne lu yàlla digle def naa ko lu mu tere wan naa ko ginnaaw mosuma caa jaar kenn séenuma ca waaye lu mu dogal neex na ma radiyallahu taala anhu te xam ngeen ne gëm ab dogal ak nangu dogal daa bokk ci xawaadul imaan nit ki mënoo gëm yi nga gëm yëpp ba noppi te bu yàlla dogalee ab safaan ci yow nga ñaxtu wala nga ñànki wala nga gise neneen euh, waxoon fii tamit ne ginnaaw nit mënul dund moom dong faw mu dund ak i mbokki doomu aadamaam ay mbokki jullitam ay mbokki taalim ay mbokki dëkkandoom mu waxoon ni ñu wàccoo ak doomu aadama yi kenn ku ci nekk te yooyu yëpp wa maa yantiqu anil hawaa ji wàccoon ci yonent bi alayhi salaatu salaam moom la jële ca moom lu mas a digle rek moom la yàlla wax lu mas a tere moom la yàlla wax moo tax liggéey bii ma doon junj sànk wax na ne fañ ko kalaamee ni ko ñenn ñi jàppe ka ñuy wax ne moo kalaamee sori na lool ak fañ ko kalaamee ndax li ko boole ak nasaraan mooy ci misaal moo ko waxal boppam daa mel ni que rëbb bi nga xam ne dafa dugg ci gott bi di wut ay cokkeer wala moo xam yu muy wut waaye sàmm bi yor ak juróom ñuy falaxi rek xam ngeen ne diggante yëngutuy jur gi ak sàmm bi dafay dàq naaw dali ci biir xur wi sëriñ bi neen loolu rek moo jotale bëgg naa rawale kee bëgg naa sàmm bëgg naa yàq bi mu jógee yi ni ma waxee léegi daal di wax moom mooy kan ginnaaw bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam sàkkoo mu nekk ab liggéeyu konom nekk jëwriñ ci tool bi tam wax ne raama rasulullahi min ilaahi kaw ni abduhu wa kaw ni qadimu wa abdullahi nekk gi ma nekk maanaam di ab jaamam waaye di liggéeyee ko ne rasulullahi salaam yonent bi ci moo ko sàkkal boppam foofu ñu dégg fi ne yonent bi sëñ Tuubaa daf ko roy ca ba yàlla di nettali ca surtout Isra rañaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam tudde ko fa benn garaat bu weesu ab jaam subhaanallazi asra bi abdihi la ko yàlla waxoon kon nit ki nu man toll rek ci kanam borom bi ak lu mën di ràngoo jaamu bu yàlla rek la mën nekk suñ tubaay bi mu dikkee weesalul boppam jaamu yàlla subhaanahu wa taala foofu ñu war a bàyyi xel bu baax ci ne fekkoon na fi lu nekk dara jaam yóbbu na ko fu nekk waaye waxtu wu bindee wala mu wax rek day wone moom ab jaamu yàlla la di liggéeyaa ko ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon ñun ñi nga xamante ni ñoo topp ci kawam ni mu def boppam nan ko ni def ndax loolu mooy teggin ni dox diggante nit ki ak boromam daa bind ci xikmul Cheikh Xadim bi ci Abdoul Ahad Mbàkke dajale woon wax ne teggin ñett la sa digg ak sa bopp sa digg ak sa mbokki jullit sa digg ak borom bi subhaanahu wa te bu ci manqué rek bi ci des du mat bu mujj daa waxoon ne kum doon ku ne na ko yàlla def nga def ko na kon nag moom nii ko yàlla def bokk na ci ay teggin ak nongul ko ak jéem ja xam dara ci moom moo nga def ko ni ko yàlla def tam bindal ko boppam ne xadimun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw nekk ab jaamam diggam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko si Abdul Ahad Mbàkke nettalee woon di loo xamante ni daf ko gonte rek lu mu xëyee doon ca tudd jëm ca tudd daa ne koo xam ne loo jur jox ko loo am jox ko boo ne bëgg naa koy kenn du ko wedd tàmbali di lim ca Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci njaboot gi yëpp te tur woo ci dàq rek mu ñibbi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp mit saa soo ko gisee day misaal lépp yonente bi alayhi salaatu salaam ba sax bokk na ci li mbind na yow yonente bi alayhi salaatu salaam sama lépp dana màggal sa lépp tey lii mu wax kenn du gis may borom lot ci loolu yaakaar naa nam ko waxoon nu ko raw la ko defee alquran it mu dox ci dox woo xamante ni ak doxin woo xamante ni histoire bindul lu ko jiitu ko ni doxe te ba nga ko defee ba tey déggaatuñ ku ko ñaareel tey du lu ñu gëm mukk ne des na ko gisaat jamono ndax daa bokk ci lim bind mën a firi taxawaay boobu te mooy ila yaqaadallaahu ma lam yakuni wala yakuni abadan li mumkini kon nag mu woo ñi nga xam ne ñoo topp ci kawam di ay taalibe di ay julit ci lan iman islaam ihsaan ndax nit bu fekkee da ngaa bëgg àgg fa mu àgg da topp ci kawam benn xakim nee nit boo toppee ci kawam te wàccoo yoon wa wëriwoo woo dana tax lu mu waddale nga for ko te bu àggee bu gestoo gis la kon ànd ak nit kum doon ci suñ àndinu jamono rek ñun ñëpp gëm nañ ne doo ko na jaar fee ma jaar waaye da nga topp ci moom leeroog moom wala nga topp ci ginnaaw di gëm ak alxuraan lépp alxuraan boo bëggee xam ni ko Sëñ Tuubaa def da xool ni sëñ ni alxuraan def Sëñ Tuubaa ak fu ñu ko yóbbu daa waxoon ne alxuraan jàpp gi ma jàpp maa ngi mel ni koo xam ne da jàpp ci da joxe da ngay da ab silmaxa nga joxe sa ab tuum ki lay womat di la dimbale di la jaar la aw yoon di la mooy la ay pakk ak ëkk ak i pax ni nga ci ngëbee ba doo ko mooy ndigalam fu mu jaar fa nga jaar nee na noonu laa ngëbee ci alquranu karim maasikan bil kitaabi maska dariri bi yeddil xaaidil basiri muini waxaat feneen ne te masaktu bil xablil matini murattilan wa bil wa bil uruti wusqa lati hiya nuuru moo tax xoolal alquran fi ñu ko yóbbu moo lay xamal sëñ Tuubaa naka la def alquran ndax loo nekk ci moom rek bu yàggee ngay moom mu yow moo tax it xisas yi ngeen ci dégg yëpp te muy wér rawatina ci Abdul Ahad Mbàkke nettali ci jamonoom moom gu moom alquran karim donn gu ñu ko donnloo may gu ko may te lépp mu bind ko li ma wax loolu moo ko may alxuraan moom it bi muy dem ci géej gi ñett ñim àndaloon ci dox bi tàmbali Mbàkke Baari ba ca jeewal ja Louga Ndar Ndakaaru bay juróom-ñaari at ci géej gi yëpp dem dikk ñim wax ne ñoom la àndal alxuraan ca la bokk rafiqi kitaabulaay far moom la jiital sax far wal Mustafa nabi wa asxaabuhu fil bahri hiina aduuru àdduna moom mësu koo may dara ci boppam mësu koo xaar dara ci boppam it loolu moo tax mu waxoon bi muy xamle boppam ci ne génn nañ ma waaye boo demee seeni mbind seeni tuuma duñ la wax dara lu may ñoom kat dañ ne man jaamu yàlla boo xam ne damay fetal jihaar axrajtumuuni naatixiina bi am na annani abdul ilaahi gis nga ba léegi mi ngi jëfandikoo baatu abdu kon keneen ku bëgg a def suñ tubaa leneen lu ab abdu ak xadimu rasul déggoo suñ tubaa léegi nag xamu xér la xama waru la xama seytaane mooy bëgg am li mu bëgg waaye mel na ni fii sëñ Tuubaa yemale woon am mbindam ñu bare bare bare ñu ngi ko ko weesal rawate ndaw ñi te nit ki lépp lu mu wax soo ko bëggalee nettalilu sax demal ci la mbind te li ko ñor lépp waxtu nekk ma ne ko wax bind na ko jàngale na ko jëf na ko wax na ko te mahabba bëgg bu àndul ak am xel ndax alxuraan dikk na ba dem wàcc ba jeex ci ñaar fukki at ak ñett mësta wax ak ku am xelam dikkut borom xel rek la mas di waxal saa su wax ak yow sam xel demit noppi naa wax ak yow keneen lay waxatal jël na ay bagaasam kon foofu mu jaar yépp ngi topp yàlla ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aw yoon la wone woo xam ne ku ci jaar lu mu yàgg-yàgg bu geestoo dana la gis tayit ku bëgg bokk ak nit fu mu dal da bokk aw yoon loolu bu ñu demee ci tukkib géej gi lim nettali te Irwaawu Nadim indi ko muy téere Sëriñ Mouhamadul Amin Diop adagane boobu dafa wax ne xaalal yi zaata yawmin inna sab'a sinin mu juróom-ñaar yi mën wax léegi alati makastuha fi kunga maa daat wa sa yasaru saalika yawma tubla sarairu waaye maa xadaxtu rabbi fi ubudatihi walam yaxdani tabaraka wa taala fi rububiyatihi min sidqi waadihi wa husni jazaihi sallallahu alayhi wa sallam aw radiyallahu taala anhu walakin dunya laysat bi daaril jasaa innama sha'nu fil axira nee na bés ci fan yooyu mu am ci weer yooyu mu am ci at yooyu mu am ci Gabon ak Congo juróom-ñaari at yooyu ba may liggéeyal yàlla liggéey ba rëy na lool wéetu naa lool waa yàlla lu mu doy na bis na dana ñëw dana feeñ fi gën a leer ñëpp te mooy yamatul asaraaru alquran la sëñ Tuubaa nettali boobu mu ne maa xadaxtu rabbi fii ubudati ba ma koy jaamu naxuma ko wurujuma ko tappalewuma ca dama koo dëgg rek tam tax ñu war see jàngiwaat ci ne nit ki lu muy defal yàlla na yemale maanaam wéttaliku ak wéet nee na bi ma koy jaamu ci at yooyu ci weer yooyu naxuma ko ci njaam nga waaye tamit yàlla bi may fay naxuma ca pay ga ci lan min sidqi wa'dihi ci yàlla ni mu mën a dëggale ab rendez-vous inna allaha laa yuxliful miaad waaye was na jasaa yi ak rafetuk pay ku yi fay rek yàlla moo dàq pay waaye suñ tubaa ne walakin sha'nu walakin dunya adduna ju ñu nekk na laysa bi daaril jasaa du këruk pay moo tax lu bari bari dañ koy dégg waaye dañ ko fi gis mukk daal ne innama sha'nu fil axira mbir ma kay ma nga ëllëg yawmal qiyaamati akbar te waxoon na ñetti fopp yooyu ne benn bi mooy ëllëg lañ koy xam a cheikh mahamadul fadil mbàkki radiallahu waxoon ne li feeg yi nga ma gis di gis sëñ tuuba bu ngeen ma noppee di gis doom daa wax ne faalam bi anna amra cheikh alxadim ne jamil muridin bi taasimi yowma xurujihi min jolof ila alxaybati almubaraka allati xaasa fiha ma xaasa min almaqamat alfaaxira naka na xam ci ne ndigalul sëriñ bii nga xamante ni mi ngi koy digal taalibe yépp ngir lan màggal gi nga xam ne moom lañu dëgmal te taxul mu génnoon jolof ni ngi Mbàkke Baari jëm ci tukki bu rëy bii ma doon juñ léegi ba làq ci yem ci làq ci ay daraja ak i maqaama ak i taraanga yoo xam ne li ci fés matu sax asaka li ci nëbb Cheikh Amadou Fade nee na na ngeen xam ne loolu lépp kat sant gu mu sant yàlla borom bi subhaanahu wa taala képp la ndax boo demee ci téere bi ma tuddoon léegi mi ngi ci nettali ne benn bis toog na ci barab ba yàgg rek barab bi mel ne lu ko xaw a sàpp ci bakkanam nee na ca saasa rek suñu borom xiirti moom ay xorondoom yoo xam ne dañoo toll ni ki ay cuuji ganaar di ko matt di tegaloo di yéeg di ko màtt tegaloo di yéeg ba daj kapp ba daanaka amatul lu may li muy muy xoole nee na mu yëg ca saase ne bakkanam kan moo ko jommal mu daal di jël xalimaam commencé di sant borom bi tabaraka taala ñuy beppe ko di wàcc di beppe ko di wàcc benn par benn ba set wecc mu wax ne nag ci bàmmano boobu laa nasaxale jàmbat dootuma jàmbat mukk waaye ma jël lépp woote ko ak sant loolu kon moo waral màggal gi ndax bi mu dikkee di woote waatu cant la wooteelu ñëw leen santale ma yàlla subhanahu wa taala ndax xam na la ko sant may xam na ko lu jiitu muy dem waaye rawatina foofu ca maa yomba waaye rawatina bi mu dikkee fii ci ay réewum nag Cheikh Mamadou Fadil wuy wax ji mu ne fayta ayéna ala kulli muridi imtisaalin amrihi kon na wér cëng ci taali bu ci nekk nga fexe jokkaloo ndigali sëriñ bi sëriñ bi lu ñu ko mën defal ci lu baax yelloo na ko ndax wax naa fii ne sëriñ bi foo gis lu baax këram lay wut këram lay wër saa su duggi dootu génnaat ndax la ma waxoon ci ne falaa taxisu bna abdullahi bil fodala innal kawaakiba yux fiha sinimaaru loolu da ko wax yunte waaye moom kat dal na ko bu ñu doon xool ñu baax ñi bu ñu doon gam-gam la ñu baax ñi dañuy génn suñu Tuubaa teg ko nee ndax moo wax ne yàlla ci boppam moo ma nocc ci mbindee fi teg ma ca kaw xamal leen kii kat jaamu yàlla la tey jaamu yàlla teyit liggéeyaay ko na rasulullahi sallallahu alayhi wasallam moo tax génne gi mu génne boppam ci doomu aadama yi donte dañ koy siir muy yor jëmmi doomu aadama yi moo ko bindal boppam wax ne nasa ani rabbul wara baaxil xadim allamuhum bi anni abdul xadim yàlla moom a génn ci mbindee fi teg ma na leen xamal leen mbindee fi na leen kii kat du yéen du ngeen moom ndax koo ne maa la man mu ne mu ne la ci lam waaye soo defee lu munut mu xam ne doo moroom loolu ku xool Sëñ Tuubaa xam ne ñi ko jiitu woon ñi ko mujj ñëpp waxul kenn dara waaye li mu def te bind na ko boppam man shakka fi saalika falu jar bi wa man jari ba abi taxarrub ku wedd rek na daal di essayé léegi ak këppam du sori Cheikh Mamadou Fadil nee na raajeen ko fii saadata daari ne ñu fas ci nag ak yaakaar ci tax ak àdduna ak alaxira waaye Sëñ Tuubaa moom daawul firee àdduna ak alaxira ni ñu ko jàppe ñun muy àdduna ji ñu nekk ak ëllëg yawmal qiyaamatil parce que doomu yi dafa am fu ñu njëkkee woon a nekk fu bokkut ak fii yàlla ñu fa sàmm kenn fekk ko fa kenn fekk ko fa muy fi ñu bàyyi ko ñëw àdduna yàlla tudd fa rabbu naas taxaw fa taxawaayu rabb ñu nekk àdduna mu taxaw fi taxawaayu maliki naas bu ëllëgee mu taxaw taxaw ilaahi naas ñetti barab yooyu nag kenn ku fekk yàlla ci doomu aadama amut rawatina bi ñuy jógee ñëw fii rawatina fi ñu jëmaat muy barsaxal muhammadiya waaye di ñaan rek ñu daje fa ak sëriñ bi ci lu gaaw loolu bu ñu koy def nag bi sartin dafa teg ab condition ci ne an laa yakuna fihi munkar wala lahu wala laib mu asimuhu bi tilawati alqurani wa zicrillahi tabaraka wa taala na ngeen ko màggal ci jàng alquran ak tudd yàlla tabaraka wa taala ci xeet yi diñ ko xamee waaye wa anwaayi min itaami taam ak joxe ñamte yàlla tax alquran nee na wa yutimoona taam ala hubbihi joxe ñam ci la sa bëgg nekk bu dee jàng alquran waxoon naa fii ne sëñ Tuubaa nee na benn arab ci alquran moo gën yonent bi sallallahu alayhi wa bu dee xasaay di kasaalika lim ci wax ñu ñëpp dégg nañ ko ni muy def ay jaam ku ne gis na ko mu tekke nag wasilatu rahmi aw wasilatu rahmi wa ziyaarati saalihiin wa ma jara majraha Cheikh Mamadou Fadel bi muy taarif ci màggal niñ ko war a defee lii la ci indi bokk ci yooyu nga xam ne moom lañ jàngat ci war a jàngat ci duruus yi nga xam ne mi bokk ci alxayba albahriya bi sëñ tubaa dikkee te ba muy dem ànd kenn ku du ñett yi ma wax dafa njëkk sant yàlla ndax ba muy dem dafa julli ñaar rakaa sant yàlla jàng ci bii ixlaas ginnaaw faatiha jàngaat ci bii ixlaas ginnaaw faatiha loolu li muy junj di ko wane mooy diine moo ko génne diine moo koy dellu siwaat te moom laa xoon léegi ne wax na ne boo demee ci ay mbindam duñ la wax mukk ne def nañ ma nangam wala def naa leen nangam wala ma nangam dañuy wax na ne jaamu yàlla la buy jihaad jëm ci ñoom ngir ay intérêt yoo xam ne dañoo jàppoon dinañ ko yàqal moo tax mu ndikki dafa wax ne alhamdulillah la si yaru ni ilaa maadi wayu suunu lii badani maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moom ma delloo sama ñoñ ba noppi sàmm ma waggar ma defar sama yaram ba indaalu ma léegi pattuma suuxuma dara daluma loolu ko ku ne xam na ne buñ la nettalee fi mu jaar rek nga xamoon ne nii lay ñibbisee moo tax ba mu wàccaatee ci wax bi loolu la njëkk a defaat def na mu defoon ba muy génn julli ñaar rakka sant yàlla soo wa bu baax a baax yëkkati ay loxoom doon na yónent bi alayhi salaatu salaam wax na jégal naa samay noonu yëpp topp ma kenn dara léeg la nga jégal ni ba noppi naan ko dogal ko nag diw bu ëllëgee boo ko defee waaye moom du ñaaxewut dafa jégal rek yàlla tax Tuubaa nag di lenn ci ñaan yi yi mu doon ñaan te yàlla nangu ko ko te yàlla moo wax ci alxuraan ne wala woo leen ma ma wuy leen te yonent bi la ko wax ne ko sa sa jaam ñi ma leen de bu ñu may woore ma wuyu bu ñu ma ñaane ma jox leen ndax man baral naa lool te du ma jeexal maa indakum yanfadu wa maa inda Llaahi baaqi benn bis sëriñ bi ci liggéey boobu dafa toog ci déy yi mu daan déyante ak yàlla ak liggéey mu liggéey jaar ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaj bay bëgg bind rek yëg ne daanaka dafa amatul benn kàttan ngir mu métti ba daj kapp ndax lan coono ak fitna ak lu ko yàlla teg rawatina li mu naan gàddul jaam yi ngir ñoom ñu mucc moom mu dem waaye ci wet gi rek mu dégg benn nasaraan yi boo xam ne ma ngay xaqataay bay ma ngay ree bay xaqataay di dund na ko soobee ci am jàmm sëñ Tuubaa mës ta ñaan jëmee ci keneen ku dul yàlla ndax yàlla moo mën a wuyu ak ñaanam waaye mës ta ñaan tamit tëkku jëm ci keneen waaye mu ne yàlla yow de xam nga li man xam nga waaj taay waaj ak fi ma jëm ak li ma naroon te xam nga ne sama yaram gàllankooru na waxtu bu ñu koy wax ca saasi rek nee na mu dégg benn ni onk yu metti metti metti yooyu xam ne nekkete waa ji doon xaxataaj betam moom la musiba dal loolu mooy fiir gu yàlla fiir ci ab jaamam waaye du ñaan gu suñ duwaa mu jëm ci moom du xalaatam du itam du yéeneem ndax ki wax ne irham jamil waraa ku ne xam ne ne du ñaan lu jëm ci keneen rawatina doomu aadama loolu nag bu ñu demee muy dëkk boo xamante ne dëkkub yërmane la dëkkub njëggal dëkkub barke te mu wax ko ci matlabul ni war nañoo xam bu ñu demee naka lañ fay sàkku yërmane ndax yërmane kat yàlla nee na ci alxuraan lu yaatu la lu jege la waaye lil muxsinin ñeel ñi rafetal barke tamit Sëñ Tuubaa wax na fii ne bu ñu ko jaloon ci suuf ba muy risu asamaan ki nangut a barkeel du ci am waaye tamit njëggal ki nangut a jéggalu du am njëggal mukk te jéggal day dolli wërsëg alxuraan wax na ko bu ngeen tuubee dellu ci yàlla yàlla sotti ci yéen yulli leen ci yéen ay barke yu bàyyi ko asamaan ak suuf du ko mën a jeexal moo tax mu waxoon ne wa maskani al maskanal mubaaraka wa sayrini naasikan wa saalika wa naasika yow yàlla maa ngi lay ñaan nga def sama dëkk bii di tuubaa mu nekk dëkk boo xamante ni dëkk bu barkeel la dëkk boo xamante ni dëkk bu ñu sóobu la jëm ci jaamu yàlla dëkk la boo xam ne dëkk buñ koo xam koo xool ak gis jeextul jaamu yàlla ci moom yëmu ci mun ne wala daj alan ha saata limtilaa yi nuuran wa rahmatan bi leen taxay ñaan yi sëñ bi ñaan nag ñun donga yi ñun taalibe yi dem ci Touba ñoo war a ba taxawee ko xam sëñ bi li mu woote xam na mu def dëkkam bee bu ñu demee ñu bañ a soppi couleur dëkk ba waaye couleur ba fa sëñ Touba def bàyyi ko fa bu ñu demee seey ci biir couleur booba couleur bu waj'alhu da'ban maskana ittibaa'i li sunnatillah maskana ibtidaa'i maa ngi lay ñaan nga def ko mu nekk màndarga moo xam ne nekk dëkkub topp yàlla ak sunna wala topp yàlla ci sunna yonent bi sallallahu alayhi waaye bañ a nekk dëkkub topp sa bànneex wala topp biddaa walla fent jiitu la tamit maskani ij'al maskanal xufraani li ma wax léegi ci njëggal mu nekk barab bu njëggal kaay kon barab bu ñuy jéggale nit ku fa dem da ngay fexe ba nuru kuy jéggalu wa di barab bu njub ku dem foofu da fexe ba mel ni maanaam kuy sàkku ak njub wal irfaani wa ridwaani te yëpp nag benn boo ci am rek doy na sëkk ci mu sauvé la àdduna wala wala sauvé la àdduna ak alaaxira moo tax fii mu ñu jëlee ak fi mu jëmee waykat boo xam ko na ko daal ne yow mi nga xam ne yaa ngi sàkku ko mel ni Cheikhul Xadim sàkku nga loo xamante ni jomm na sa bakkan faat na mun a nekk daal ne jëlee sa mbir jox Cheikhul Xadim te jébbalu ci moom. yaa man yarumu shabihan li ahmada li cheikhi ahmada bamba rumtal maxaala fa sallim ala cheikhi ahmada bamba loolu day dellu rek ci yërmandeem ju yaatu juré ji nga xam ne moom la ëmbal doomu aadama yépp te bokk ci karamaat yi nga xam ne bu ñu delloo ci doxam boobu nga xamante ni wax naa léegi ne li ko rek mooy ñett yooyu nga xam ne ku dul moom àggoo ci fi àggoon te jàppoon na la muy am kamalul imaani wal islaam wal waaye doon kenn ci wax ahlu badrin muy moom ñuy ñoom te loolu ku ne xam ne la ko doon maye faatoon na waaye bind na ci masaalik ne bul jël nga ne rek nga jagleel ko ñi jiitu woon képp bàyyi ñi mujj kon da ngay réer barab boo xamante ni ni ko mag ñi waxee barab bu la gën a nangu am ñax moo la gën a nangu gàncax barab bu fekkee ne boo fa defee benn mu wute ak foo ko deful ngir màggaayu barab ak teddaayu barab ba kasaalika boo fa defee asafaan it noonu la ko borom bi di fule moo tax Sëñ Tuubaa ci xutbatu wam sasin boobu ma doon wax ci waxtaan yi weesu waxoon na ci lool ndénkaan bu am solo waaye joxoñu na lool jëm ci julli noonu nag bu ñu ko dee wuyu ci ab wootem lu ci ëpp ci nun bu ñu fa duggee rek dañuy daal di bëgg a sàggane yenn ci yooyu te ginnaaw dafa woote ci diine lislaam wuyu ko ci mooy ay teggin rawatina bokk yi nga xam ne léeg-léeg ñoom dañuy fare ca waañ ya léeg-léeg ñu fare ci yenn liggéey yi te loolu si bi joxoon na aw bind wu leer ci njaaram gi ci bi mu rombee ñu ko doon liggéeyal liggéey boo xam ne sax ci yàlla la jëmoon mu ñëw julli ba noppi départ romb leen fa firiloo leen liggéey ba na leen fa ngeen yemoon bi ñuy tàmbali na fa tàmbaliwaat ci la ko bay daan yi boobu waxoon na ko maa salakum fi saqara mu tontu ko ne ko fa waylun mu musalliina dëgg la xëy na dune rek ku julli rek dem aljana ku julliwul rek dem safaan déedéet mbir mi nekk foofu waaye lislaam daam lu ñu koy taaral wax naa ko léegi ci njëlbeen gi al islaam bi ta bi ta bi ta faquhi mooy wala bil fiqhi mooy nga fexe ba bu fekkoon nit la ngay solo ko ay yére ba mën duggante ak nit ñi mën a jëflante ak nit ñi moo tax xaafisu ala salaati wa salaati wusta yooyu yàlla wax sëñ tubaa wax na ci lu baree baree bare sëñ tubaa radiyallaahu taala daa wax ci matlabul ni ci ñaan goo xam ne ñun ñi ñoo ko jëmmal ni ma ko waxee léegi boo demee ba tuubaa lu liggéey bi bopp sëriñ bi xat-xat loo nekk nekk nekk gan wala ngay ganale yaa xam taxawaay boo ci mën taxaw saa soo déggee noddu rek nanga xam ne defatoo lu gën a war dem julli ci ndax loolu dana tax ñaan gi Sëñ Tuubaa ñaanoon nangu gi yow nga fés ci ne tax nga ci wala bokk nga ci ñi ñaan gi nangu seen kaw te ñun ñëpp dañoo bëgg kenn ku ci nekk lu yàlla digle mu jaar ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaar Sëñ Tuubaa bu liggéey bay feeñ nga bokk ci ñam feeñal liggéey bi ci ñoom te daa waxoon ne wala tusbitan fii jamaatan tuqiim asalawaati alxamsi daban yaa xakiim maa ngi lay ñaan yow yàlla nga def mbooloo muy taxawee julli fii ci Touba mbooloo moo xamante ni dañuy taxawee julli juróom muy nekk seen màndarga seen simma boo xam ne ku leen gis xam ne la nga jaarloon ci rasulullah sallallahu alayhi mu jaar ci ab yonentam ñëw ba ci man ma jotali ko sama ñooñ kenn munu leen ci kon du tekki wër nit ki daa war a bàyyi ci ne moom daal bu dee liggéey sëñ bi rek jaamu yàlla yi moom mën na ne ba noppi déedéet sëñ bi diglewu ko noonu nekki wutewu noonu tamit jàngale na ko ba bu baax a baax kon li mu tekk rek mooy la waxoon ca toomam yooyee daan ne yàllaa ngi nii yow doomu aadama yaa ngi nii daan ne saa soo déggee allahu akbar defatoo lu gën a war julli waaye saa soo doxee jëm ci ndigal yàlla yi na la wóor na jëru ngay séntu loo bëgg li nga bëgg lépp yaa moom yéen a bokk fu ngeen teere booy àgg rek boo geestu gis ko sa ndijoor waaye waxtu woo doxee jëm ci tere yi nag jërtu ngay geestu ngay muslu loo ragal wala bañ yéen bokk fu ngeen jëm waxtu woo àgg ci tere la soof te loolu la bind ne man faala ma shaa laqiya ma saa ku def loo xamante ni sa bakkan da nga ci teg danga nga daje lu soof lool te doo gis kenn ku la ci si naa Seydina Ali karamallahu ci dafa wax ñetti mbir yu solo daa wax ne leeru jullit ci àdduna jëm àllaaxira mu ngi bàyyi ko ci taxawee julli guddi te alxuraan loolu wax alxuraan li mu wax ci naafila mooy na ngay jóg guddi boo làmbee sa lal suuf sedd mu wóor na la tëdd rek neex na nga bàyyi sa lal gedd ko te yàlla rek tax nga jóg fi la alxuraan boo ko defee amaana borom bi subhaanahu wa taala yoore la ay maqaama yu kawe kawe kawe yu ñu sant ñu gërëm ci yàlla subhaanahu wa taala te sëriñ bi loolu la bind taj ful madaaji'a fii layli junubuhum naasina salma wa layla fil busharaat ñoom ab lal lu mas a nooy dañ koy làmb teg seen wet daan na lii jomb na la lan mooy lañ jombul seen wet mooy lan fanaan taxaw julli fanaan seen der sikrullaahi te alxuraanu karim bi mu nee na ngeen tudd yàlla wutalu ko ab lim kon nay bari rek kon ku bugg am leeru àdduna jëm ëllëg yama xam akbar da dangay fexe ba di naafila lu baree bare bare naafila nag waxtu ma agsi foofu damay wax ne naafila julli guddi yu bari am na ci ñu mu baax waaye naafila alal nag am na ci ñu gën kon kenn ku da ngay naafilaa fa la yàlla joxe fa la yàlla joxe lu mu joxu moroom ni ko mën a waxe leeru julli tamit mënu ñàkk te tudd yàlla ab julli da cee watte leer goo xamante ne gu dàppetu la ni nga xam ne bu guddi jotee jant so kenn ku ci nekk bëgg lu leer ndax man cey toxal sa sab gis ba maa def la nga bëgg def yëpp te doo gaañ doo yàq julli guddi wala tudd yàlla borom bi tabaraka taala noonu la ko joxe rawate rawatina léegi li ma waxoon mooy istixfaar nga xam ne moom waxtu nekk nit ki mën na ko def barab boo mën di nekk ak salaatu ala te loolu it day yokk te li ñu yéene ci bis bi ak liñ ci bëgg ak ni ko sëñ bu wootee ku ne xam na ne jëf ju rëy wax ju rëy du ko jëf du ko def waaye koom mu rëy mu yaa mu lew moo ko joxe te ku ko bëgg a baral nag del bari istixfaar rek suñu borom di la dolli wërsëg ngay def ni nga bëggee ci yàlla def ni nga yëgee ci yàlla subhaanahu wa taala kon bis la boo xamante ni waxtu wi daaw teewoon nañ fi waajale ko yàlla may ñu ñu def ci lañ ci def yépp kenn ku ne xeem nga ko te kenn ku ci nekk yëg nga ne li nga ci yéene di ko ci def wóor na lu say pexe du sa man-man du soxlaw denc kenn ku ne bu beesoo da nga def loo xamante ni ba muy jub nga di ko yéene rek nga amoon waaye demewu ca man-man loo dencoon na dama ko jël def ko ca waaye danga nga caa demee pas-pas ak yéene ak ndigalu sëriñ bi mu yéege la ndax dañuy wax ne jëf ju baax jëf ju baax yéene da ca am solo te liggéey boobu nga xam ne moom la sëriñ bi woote li tax ñun ñu ëpp la ci ku dul ñun. fii la ko njëkkoon a woote ci njaareem fii la ko defaloon boppamit fii la bàyyoon Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke alkarim fii la ko doon defee bee ci jamonoy Serigne Mouhamadou Fadel Mbacke mi mën ay waxam moo ko toxal Touba ci ay anam yu nu mën a xam ci zaahir yegees na moom moom mbiram la ñun xamuñ ci dara mu wax ne ginnaaw xam nañ ne jullit ñi mënuñu ñàkk bañ di daje ndax tey jii ku fi benn xabaar yaakaar naa dana yaatu lool ku dem yóbbaale ko te booba jullit ñi taalibe yi soxla nañoo taxawal li sëñ Tuubaa wax ci matlabul ni te faw sëñ bi mënul ku ne mu dem ci yow ci jëmm saafante ak yow mu dajal nit ñi Touba woote màggal Touba Touba loolu kat ko jëriñ jaay waaye kon tey jii ñëpp ñun la ñu fekk si kon mu jiitoo fii sëriñ bi defee ko fii bàyyi ko fii mu mujj dem Touba te ñu ñëpp ñu gis ne ci xel rek ak nite rek bu ñu bàyyi ci yëpp xam nañu mënutoon a ñàkk loolu kon ku ci ne war nga caa demee pas bu sell ak yéene ju rëy ak ite ju kawe. ndax yitu ju kawe jooju ci la Cheikh Modou Moussa Mbacké taxawale li mu taxawal lépp ak li ci dem yëpp te ngeen dégg nettali yi nga xam ne am na ci yëpp ba agsi fi ñu agsi sëriñ bi yitte ju kawe te moo ko may liggéeyam bii tey mu may ko ndam li mu ko may ndax am itte ci lislaam ba gisee rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni ko ñu bari di waxee naan kuy wuti yàlla soo gi daje yonte mën ngaa far dëpp moom ba daje yonte bi dafa xeeb daje ko waaye lu mu bëgg ñu marale ko ak boroom tabaaraka taala fa muy jëlee mu ni ko fa jox te loolu mooy la waxoon ne dalla ni allahu ala muhammadin wa xaadiri muhammadin li samadi dox bu réeréy la ci dox boo xamante ni liggéey bu rëy la ci dox waaye ba mu àggee nag ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala ku fa mas àgg bu dee am magasin la ci misaal yàlla daf naa la dugal jël la soob nga dem kon boo jëlee am na fa des waaye moom bi mu dikkee yàlla ko jox caabi magasin ba gaa yi doon jële moo tax mu sañ bind na xasaa inu rabbi sax sax lii wa futihat koo xam ne ànd nga ku doy ànd kuñ doyloo ànd ku wóor ànd ku wér li waxoon ne fu ngeen fi man di wax nit ñi ne leen nañu banque seen tànk yi seen xel banquewul noonu na ngeen leen wax lu wér dana wax lu war di wax lu wóor jamono bii ñu toll nag lu wér moom weesuwul jàpp ci yàlla def ko rek mu yàlla subhanahu wa taala ndax loolu la bind li wóorit mooy ànd ak sëriñ bi radiyallahu taala ci nim digle ko ànd ak moom li war tamit mooy di nettali ay mbindam di nettali ay mbindam ndax li ko ñoo lépp bind na ko waxtu wu nekk moo ko te yemale fi mu yemale bàyyi xel fi mu bàyyi xel li ma bëgg wax ne mooy lu baax tasaaroon ci àdduna tey waaye Iblis waxoon na ko ne naa la bàyyi ba nga dellu sa dëkk ba ma dikkaat dugg seen biir képp kuy woote jëm ci yow ma dugg seen biir fexe ba soppale leen jëf ja ba dugg ci la ca loolu daa mel ne fi ñu toll ni ñu ngi bëgg a may bunt ibliis bu ñu ko nangu sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu mësul nangoo doon ku dul jaamu yàlla di mbindaan mu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci am lépp ci lañ ko am buñ ko weesal jàng nañ tamit ci alquran ni yàlla taarife boppam qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad la ko lahu kufan ahad sëñ tubaa saar woowu ma jàng ni mu ko dunde gis ñu ku ni dunde bu doon mbubb ñu ne moo ko sol taxaw kon mbubb moomu sol bu ñu ko ji ma yokk manqué wul bu ñu ko ji ma wàññi te léeg-léeg nga dégg ku xiir naan sëñ Tuubaa yàlla la sëñ Tuubaa du yàlla jégul yàlla te ku dem màkka yàlla bu ñu ump ñun ñu demagut waaye ku fa dem nga xam ne yàlla moom yàlla rek la yonent bi képp la yàlla yónni ci noonu te sëñ Tuubaa nee na képp ku jaamu yàlla te tegu ko ci ngërëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ëllëgee da nga xam ne yonent bi képp la yàlla yónni ci nit ñi waaye képp ku jaamu leneen lu yàlla bu léegi danga xam ne yàlla képp mooy yàlla waaye foofu nag ñun ñoo taxaw seetlu ci ne képp koo xam ne ànd ngaa sëñ Touba weesale ko fi ko yàlla teg wala nga ëppale ko ko yaa ngi ci nax wu wi la nañ daa waxoon ne rajaawu jannatin bila taati yaakaar aljana joo xamante ni àndut ak jaamu yàlla bi sunnatil maahi tegu ko ci ngirum Seydina Muhammad xuróorun yaati ay waru yu leer nañ li luy dikk sa kanam kenn mënu laa tee tàbbi dinaa joxe benn firnde mooy fii la xewoon jaar ñu ñëpp dégg nañ ko te wér na ay sëtam a ngi fi Mame Mbaye Sarr bi mu ko nee nangam nga nam jëflante moom ñëpp dégg na ko kon bëggul ko koy wax loolu bëggul ko koy tegit du tee nag ñu xam ne li ko yàlla jox moom ëmb la boo xam ne boo ko imbee loo bëgg koo cee fekk waaye jëflante boobu mu jëflante ak mag moomu ne la wóor ne képp koy waxal loolu bu fi nekkoon dana jëflante yow lu raw loola ndax fa mag moom a nekkoon bay wax loolu la ñun nekkuñu fa àgguñu fa wala boog ñu ëpp ci ñu koy wax nekkuñu fa àgguñu fa te jàng boo gisee sëriñ bi digal ñu ko daa waxoon ne bokk na ci li nga xam ne mooy gàllankoor taalibe yi iblis won gi mu leen won ne jàng amul solo léeg-léeg nga jàng nit ne la man sëñ Tuubaa nekkul ci am jàng ah moo ne moom da li mbëgg lépp ñu xam nga di ko bind li mbëgg bëgg ñu jàng ko lépp da ko bind te bi koy bindit daf ñoo dimbale ba nga xamante ni daf ñoo tudde xaside yooyu mu bind jëm ci ñun ngir ñu mën koo xam ne li ñuy li ñu téye di ko jàng ñoo ko moom nit nag du sàggane alalam kon li sëñ bi bind nañ ci jàpp te sax ci moom te nàmp ci moom te bañ ko boole mokk suuf waxoon na ko bu yàgg-yàgg asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh